bon mhm. léegi yow waaw xam nga sa waaj yi mhm. dafa am tuuti def waaw moom garde bi baaxul mhm. moo tax tey dama bëgg ñu liggéey ci sa garde parce que mbër dëgg-dëgg bu ñu ko dee wax garde mooy mbër waaw en général dinañ dóor mbër mu daanu ka ko daan gërëm ba dem te du xam ne daanu la ñàkk garde ko yéen waaw ñàkk garde ko yéen bugguma nag loolu dal la moo tax comme sa garde baaxul faaw ñu liggéey gaal bi. kon Ngouda. waaw tàllal say loxo mu essayé gaal bi. déet say loxo mu. waaw mais. bu ko essayé wul ci yow. juróomi téeméer lay am bi. ngaa xeeb juróomi téeméer. man lay si man lay essayé gaal bi. problème nga am loo ci def. ah waaw eh. ah, cëb. waaw maa la ko wax. rookas bi rek doo am ci suuf. <laughs> jërëjëf jërëjëf ay cëm cëm. cëm baax na baax na wala kay. jërëjëf baax na waaw tubaarkàlla. macha allah mu ngi fàtte woo. ah moom du ah, defoon ci yow dëgg na yaa ngi yow itam jàmbat. léegi nag. waaw comme jugee nañ ci loolu. bi mokk na. macha allah. ah dañuy dugg ci domino yi. waaw lay dugg ak yow. waaw parce mbër baaxoowul ñu jàpp ko di ko dóor moo ñoo ñu gis ñuy nooy lu yàgg wala ñu dóor ba mujj gi dañuy bàyyeeku ñoom daaneel seen bopp mm-hmm. ñàkk dominoo koy waaw waaw kon faaw biirum rëy biirum rëy baaxul ci mbër faaw ñu liggéey domino rëy dëgg la atam kon bismillah baaxul ci mbër waaw léegi science bi yow par science nga koy kii wala wala par science la science bu nekk day joxe euh, kii quinze mille rek science bu nekk quinze mille waaw léegi yow jox andi 15000 comme jot na ñoo dox. benn séance jàll na. benn waaw kenn yaa andi 15000. 15000 ak maa ngi koy fàtte sax. Ah. ah léegi amul problème léegi man li ma jaaxal. waaw ah. amul problème dañ leen ko mu bëri. Hmm. am man ñu def calcul ma fay leen. loolu amul benn problème loolu wóor na amul benn problème par séance ngay fay. par séance am ah, nañ def calcul bi yëpp ma fay. ah. nga xam nga maa ngi commencé dugg. waaw waaw mu ngi nii. nee na par séance lay fay. waaw léegi xam nga ñu bëgg na séance bari amal journée euh, maanaam ñaar fukki junni. cent mille francs waaw. dee mu defal ay abdominaux masse canard euh, ay ay raam. waaw ay ay waram bi ay rëmpëm bu dem ay abi avant waaw ay ñoom xanaa ma nii baajo xanaa xanaa doo fi jaar péri bam yow daal ko ak kii kii ko pompé loo ko loolu ñu daan def xale yi pompé loo ko ba gagat doy ak ñu ratt ko moom kay bu bari cent mille francs dafa ngeen. na science yi bari daal. Ah. waaw ñu am bëccëg ñaar fukki junni sax su ko defee tax xam nga xaw a duun. nga junni tegal naa sa junni bu juróomi la. xam nga la yow nag moom ah nan dem xam naa ne fa ñuy jëm maa ngi yow ay mokk ndaw yi. acca bisimilah. waaw la baax nga kay baax na. ñu dem ci waaw. ñu kon nañu dem ci abdominaux yi. waaw comme ça defar biir bi. Mhm. kër ga toj. mooy waral bu ñu lay rokkaf doo ko mën a. waaw kay Moussa Oya. ata ñu liggéeyam domaine boobu. am dëgg la wala waxuma li ngeen di wax sax. ah waaw man ba ma ñëwee fii ba léegi baaxoo ko ma. danaa bëgg a baax. danaa bëgg a baax. yii yaa ngi laaj lu seer waaw waaw yaa ngi laaj lu seer baa ko dafa seer de dafa seer baa ko moom 40 mille koy def ah, waaw waaw 40 mille waaw amul problème mooy laaj mais li ma jaaxal dama daan gis mbëri bu ñu baaxu am lu ñu yor noonu benn genre buum nii loolu Senghor la loolu mooy Senghor li mbëri di def nii mhm. maanaam boo gisee ñu koy tàllal nii. Mhm. tàllal ko gauche droite. waaw talonné. Mhm. mooy waral dëmb bu ne sa kaw. Mhm. ak ci suuf ak feneen. du leen man a jàpp. billaay wallaay. Senghor maa ko njëkk a indi fii. ci yaay Senghor président. laa jëlee Senghor indi ko fi moo tax tuddee ko Senghor. Léopold Sédar Senghor ci yaayam. maa ko bàyyi ba mu tay. waaw ma dindi indi tayit ba yóbbu. tey moo sa tey xam-xam. tey xam-xam dafa làqu. xam-xam soriwul mi ngi nii. naa la Senghor rek. Senghor rek am na ko. Nguuda jox ko sa kol. sama kol rek. Nguuda baal bu ma waxee faa nga teg ci baal jox ko sa kol gii. day essayé rek. Eh, noppi. ah la ferme. yéen dof ngeen ma jàppee wala golo wala koo lan la. dara eh tel bi moom la. tel xeer ma lekk leen. yéen ma leen di lekk. waaw waaw Nguuda tey woon nag. sa waay aar ah taka ko. Hmm? taka ko monsieur. Hmm? eh wàccal say loxo eh hmm? eh loxo wàccal say loxo. dama leen di jox tey. Nguuda eh. tekkil na seere. ma seet ma seet. ngóor bu rey sax ma seet. ngóor bu rey sax xale. eh taxawal loolu sax nga gën a seet. mbër bu ci dugg. mbër bu ci dugg. bàyyi sa loxo. mbër génn damay coppite. na seet na seet na seet. mbër na seet na seet na seet na seet. dégg nga dégg nga li ma wax. dégg nga ma seet taw taw taw taw. loolu sax doyul moom loolu dafa loolu sax dafa ma doyul. waaye bàyyi bàyyi bàyyi yéen da ngeen eh. pare ma seet kii moo doyul na taxaw naa seet. lan man ba eh mbékk bu mbékk. danaa ko rey de. danaa ko rey de.

ha na kam toi kam toi mbër mbër kam toi moom solution kam toi kii solution ma jëntal leen waaye boo dem kii rek mënoo leen noppi yow ñi dañ ma merloo kam toi c'est vrai kam toi abu ci bola bi may solution xamal no kam na da leen ray sonn naa na bi dee ngaa jóg yaay man mënu maa génne sama kër gi tamit man sama bëñ bi day metti fi mu ne léegi man kon nan laay def waxal ak Ibrahima ñu dégg. Nabi bu ñu tëdd. yaay sama pëñ bi day métti yaay yaay bàyyi ngay de waay sama pëñ bi day métti. yàlla ma yàlla àtteeg semu. yow mii yaa ngi dugal ba pare yow yaa ngi dugal semu semu xam nga ni la gën a nekk mag ba pare nekk mi ñu ko sugi. léegi nag da ngaa war da ngay tëdd nii di jooy may jooy ñu ànd di jooy ñun ñaar amul njariñ da ngay jóg wax ci mu génn. juga pintu gampang kenapa sob mulu pada darah ya pintu gak bisa mundur kiri kok kiri, gue kan darah dia lu lantas papa ngapain mundur dia di dalam darah ber kamu tua, mama kayo mhm. ber kamu tuh ada yang bahaya kamu tuh qu'est-ce Kes se lalu ñaar ñi dañ ma jàppe seen golo wala lan la kii ñëw woo ma ne ma am bu ay ndekete amul lenn lu xalaatul dóor ma. waaw di jël sama xaalis par séance quinze mille quinze mille. tey dama leen di coob yéen. da ngeen yaakaar li ngeen doon def lépp laa yëg. konoon da ngeen di mën a noppi. Mhm. ma réglé ko mënoon leen ko man dem. de kay kay kay doo dem. da ngeen di noppi. ok ubal dëgg la mbër ngay sàcc. voilà li ñu la def métti na c'est vrai ah. ça fait mal ah. ça fait mal qu'est-ce qu'on va faire. ñun moom ñun moom wóor na yàlla wéeru ñun wéeru. waaye lii day dal. non man maa ngi def. kay ndaw doom. man wéeru ma. non da nga may bàyyi rek la situation bi man wéeru ma. xamoon naa dara ko baax. mbër calme-toi d'accord mais xam naa la ñuy def ah. xoolal. gerte ma bàyyi ma coow. loolu yow loolu yow déglu ko bu ne ko baaxee wax ak yow. dalal dalal dalal comprendre am dalal dalal ndaa dalal léegi man dinaa jël sa numéro ci sew bi jël ko ci wala déet aw yaa aw fii aw ma numéro fii yaa fii man di yow yow la ñu xaalis bi yow yaa dëkk ak bayam sa bay man sa wax yi bëgg a bëri dégg maa liquidé mu gaaw oui ma c'est bon après nga jox ma numéro bi damay régler situation bi ah guuda dana ko jox man yoruma numéro bi day leer day leer naa la ko jox day leer régler la day leer sama grande sœur bu ñëwee la hmm. ñëwee man dinaa la woo moom dina la fay xaalis comprendre nga mais dama bëgg a xam moom ñaata la la lekk la moom dugg na ci quarante cinq mille eh du quarante cinq mille eh, damay wax ngay lekk samay wax non kan toog quarante cinq mille muy fukki junni yi manqué junni mu naan quarante cinq mille dox bi loolay quarante cinq eh, mille eh. mën ngeen noppi mën ngeen noppi. mën ngeen noppi waaye dañuy wax àll ak léegi la parce que. kii na bëgg a ñëw boo xoolal moom moo fen ah, ma dem papa moom bàyyi ko mu ñuus ko. da ngay fen yow sa papa sàcc la. ngay sàcc baayam kii. booy. moom moo doon sax booy bëri na situation bi. lan moo tax nga ñu gis daal rek booy yow booy booy booy mër léegi moom li jënd si. non non booy booy kay kii dafa dëgër bopp sa bàyyi ku réew la. yow yaa réew la léegi xoolal leen def noonu parce que ñii. ñii ay maame ay maame. billaay boo leen dóoree rek leen di gaañ. wallaay comme la xam lu ñu def. dafa li ma la wax. après xaalis bi ñu la ko envoyé. soog a yàgg comme la donc ñii bu leen kàll bu leen dóoree fenn. boo leen dóoree gaañ. à une condition. waaw la une condition. à une condition ma nangu li ngay wax. Hmm. waaw. keroog ki ngay wax noonu moom moo jox xaalis gis naa ko. Mhm. moo na loolu am na ay inspirant. Eh, eh, eh. am na lu ne. xes na pecc nooy na. bu kii waay mu nopp ma ah une condition. mu nopp ma. ñun dañuy jaayante ñun. sama gëlaat ay may. gëlaat may ñoom ñaari géer ñoo ay may. rey ma dama bàyyi ma joob. ñu def dërëm kii di tànn kii di tànn. kii si duñ ko xamay ndax jarul génn duñ ko xamay ñaaree génn non da ngeen di mën a noppi man régler situation bi ngeen bàyyi seen coow bi mu noppi ñu condamné fay ko xaalisam moo ñu gënal muy jël ko boy sama jël may jël muy waay wuy moom koo xam nga waaw dal ko ci boo amoon doole dem sa laaj daal ko foofu di ko seetaan. am problème na ko fay rek à part ça moom xaalis moom. Ah. dinañ la ko fay. waaw na ko fay rek mu jeex maa la ko ñaan ñii boo leen dóoree gaañ. say loxo la nekk. samay loxo la nekk. say loxo la nekk. waaw am benn problème. jom sama ya mun nga dum ay tap yow yow ba nga tuxu yow waaw waaw dama lay job waaw waaw yow nguur ak yow sa di ubbeeku sëñ bi doo dërëm doo dërëm yow nguur nag waxa yow mi ngi bëgg duul yow xaa yow nooy jëlee yow naxate lekk nga 45 mille ci moom déglu ma rek yow koy 45 yow si bu lekk nga 45 yow bu du woon ak ta doom ji waaj dina la ñu yéen ñaar mën ngeen est ce que mën est ce que mën ngeen changer Ibrahima may ma tuuti xam nga mbër ba wagul de mbër ba wagul de mbër ba waxi mbër moom ñeexu nan la moom aalul ba waa ji dem mu bëgg ma ko si. waaw ma tuuti ma woon ko man maay kan. loo bëgg def yow lakk katam. buy wéetal yow yow lenn rek nga mën a da mbaam te mbaam damaa defoon da nga koo fekk mu dul. da ngaa bàyyi ndekete ba mu dee nga nax ko. wax yëpp tey ma war na ma